لدي في الأعداء البر والمداد هلا وسهلا وترحبا a billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wajal kalaami rasidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi siyaare ñëpp waaye di jiital ci nuy bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér naka noonu lañ koy ñaanal bépp kilifa diine mbokk di am ak bu baax ci teewaay bi nga Touba Vision teewati na ko fii ci cees ci fulk bii nga xamante ni Serigne Saliou Touré moom moo ko fi amal di ko ànd ak mboolem murit nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci diwaanu cees waaye nag mbokk yi tey jii yemoo ak juróom-ñeent fan ci weeru koor dëppoog bis bii nga xamante ni ci la jàmbaari cees gi ñëwoon fii ci Thiès wéyal fi lii nga xamante ni mooy ab liggéey ba tey dinañ ko fàttali ngeen gis noonu tey jii naka jekk fulk bi. diir weeru koor bi yëpp murid yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci Thiès dañuy ànd ak sëriñ bi li nga xamante ni moom mooy fulk bi diiru benn fan ba ni nga xamante ni moom lañuy waree saa su nekk ni ñuy amalee fulk fu nekk noonu lañ koy amalee fii ci cees fii ci jàkkaay murid waaye comme niñ leen ko waxee rek ba tey tey jii bokk ci bis bi nga xamante ni mooy bis bi Serigne Saliou Touré ñëwee woon fii ci cees nag dëppoog Touba noo ñëw fi di leen jëlaaleel fulk bi waaye ba tey di leen indil li nga xamante ni tey lépp moom mooy fi am fii ci Thiès incha allahu rabi allah ngeen gis murid yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci cees fas yéene di màggal bis bi di ko dundal ni nga xamante ni moom ngeen ko gisee mbooleem fa ab murit nekk rek ci cees tey jii teew nga fii nga xamante ni mooy fulk bi naka jekk nii lay faral di baaxoo di mel diir weer koor wi yëpp ngeen gis ne noonu Serigne Ibrahima Gueye incha allahu rabbi dina fi ñëw moo koy jàng ba ni nga xamante ni noonu la ñuy génnee ci li nga xamante ni mooy weeru koor bi kon dañ leen bàyyi rek tey ji ngeen suivre li nga xamante ni tey jii moom lañ leen nar a fii nga xamante ni mooy ci fulk bi kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee ñoo ngi fii ci Thiès fii ci jàkkaay murit ngeen gis taxawaay bi nga xamante ni murit yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Thiès ànd kook Serigne Saliou Touré naka jekk at mu yàlla sàkk ngeen gis Serigne Saliou Touré ni nga xamante ni noonu lay taxawee li nga xamante ni mooy fulku bi waaye nag bis ni tey ji mbokk yi dafa dippoog bis bi nga xamante ni ci la jàmbaar l'islam jii di Serigne Saliou ture ñëwee fii ci cees mbokk yi nga xamante ni ñoom la fi nekkal ñu ne duñ ko ko bàyyee dañ ko ci màggal sargal ko ci fàttali ko ba yëg ne li nga xamante ni moom la fi def fàttewuñ ko benn yoon Serigne Saliou Touré nag buñ ko doon waxtaan xajul ci ay minutes xajul ci ay secondes waaye ba tey ñu taxaw ak ñenn rek ci jëwrin yi nga xamante ni liggéey bi nga xamante ni mooy fulk bi am nañ ci waar ñu ngi ci yor ay organisation yoo xamante ni yu am solo niki noonu suñu xaadim ak sëñ Massamba ñu fas yéene na dékk suñu micro rek ñu wax ñu seen taxawaay ak it wàccaayu li nga xamante ni mooy fulk bi xam dañuy njëkkee rek eh, ci sëñ Bamba mu wax ñu li nga xamante ni mooy fulk bi nga xamante ni saa su nekk ñi ngi koy ànd ak Serigne Saliou Touré te chaque at muy gën di yokku loolu mu doon beneen jàngat boo xamante ni ñun dañuy dem fu nekk waaye dañ koy nemmeeku fii bu baax a baax a baax suñu xarit. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Modou ñu ngi di nuyu waa Touba Vision yëpp di leen jaajëfal ci déplacement bi ak ak yëg-yëg taxaw gi mu mel ni fulku bi nag moom eh, day liggéey sëñ Touba bu mu nangu ndax sëriñ bi eh, bi fi ñëwee 80 ci ndigal ci ci ndigalu Cheikh Abdoul Ahad ak ay rakam Cheikh Abdoul Khadir da ko da ko da ko ne woon ngay na ngay taxaw foofu waxtu juróom ak iid ci taxawaay ni ko jullit yëpp di taxawoo ci ni ko imaam yëpp taxawoo ci seen i seen i xeet dal koy jox nag fulkul mashxoon bi ne ko nag ni ko bëccëgi koor gi nañ ko fay jàng ngir ngir ngir ngir ngir jëmmal Sëñ Tuubaa ci liggéey boobu kenn ko ne xam na ni fulku bu dul njaareem euh, gannaaw njaareem Cees gii moo ci amaat ndigal ci di ko jàng xasat na nag ñu am faneen sax xëy na fu ñu koy jàng nag xëy na ci ndigal waaye ndigal li biir nga xam ne kenn ku ne mën ngaa taxaw giñ waat ko ci Sëñ Tuubaa ni am na mooy njaareem googu te sëñ Basiru daan ko taxaw ak mag ña ak kees gi ci ndigalu ci ndigalu Cheikh Abdoul Khadir ak sëñ Abdou Lahat ci sëñ Sall Touré liggéey bi nag ku ko gis mu demee nii sëriñ bi daana toog fii ci jàkka ji lal benn basang du fees daana wax mag mag ñi li leen di dem ba barab bi bëgg fee toog bëgg fee teg tànk mu tëleen ngir dana dem ba xat loolu waaye ba mu koy wax gëmoon ko doon na jafe loolu ci ku ku xam ku ku amul dëgg dëgg dëgg xam-xamu xaqiqat doo xam loola waaye booba wax ji waxam jooja tey ji jëfam ji dëggal na ko te li gën a yéeme mooy liggéey liggéey ba mat mu mel ne da ngaa seppi sa bopp ci biir mbindeef yi dem toog nee nekk ak sa borom bàyyi lépp yi dox te dara yàquwut kon loolu tamit liggéey bu liggéey bi Sëriñ Tuubaa nangu la liggéey bu yàlla gërëm la ñuy ñaan ci barkeb fulkul mashuun sëriñ bi yàgg fi lool te wér di ñaanal taalibe bi di ñaanal Cheikh Muntaxal Bachir mu yàgg fi loolu bayen naal yi mu naal ci liggéey ko maam bi tedd ji mu def ko nu kawee njortam ci barkeb Cheikhul di leen sant it baax kenn ku ne xam na ne la juróom-ñeenti fan ci koor muy bis bi nga xam ne Serigne Saliou Touré ci la tàmbalee ab liggéeyam fii ci dëkk bi mu mel ni demoon na jamono bañ ba ñuy bëgg di xam bisub juddoom ak di sàkku ci moom ak ndégam di laaj ngir luñ ko màggalal mu ne bu fekkoon ne danaa am bis bu may màggal bis bi ma tàmbalee sama liggéey ci Serigne ci dëkk bi moom lay màggal muy juróom-ñeenti fan yi koor gi loolu koo gis day mel ni dëppoog mbirum Serigne Touba ndax kenn ku ne xam na ne sëriñ bi keroog bi mu gàddaayee Mbacke Bari jëm Ndar ci lay màggal bis fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mu mel ni kon euh, euh, misaal mi wanawaat na rek màggug sëñ Tuubaa gi moom lay wanawaat ci ci biir jëfam ji rek kon mu mel ni bis baa ngoog it ñi ñaan saa borom ñu yàgg koo taxawee sëriñ bi yàgg koo teewee ak mbokki taalibe yëpp ci barkeb Cheikhul Khadim yàlla na ñëpp am jàmm sëñ Modou ñëwee ni siyaar baax a baax Touba Vision yàlla na jëm ca kanam ci barkeb Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Khadim ci kaddu yu matale yooyu macha allah ngeen dégg ko noonu bu bokk ci jëwriñ yi nga xamante ni ñooy taxaw fii ci liggéey bi nga xamante ni mooy liggéey bu mag bii nga xamante ni saa su nekk ku fi ñëwul rek wala nga gis image yi rek sa yaram dina daw ndax lan mobilisation bi nga xamante ni murit yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci Thiès dañ ko ànd ak sëriñ bi te yàlla kese tax mu doon loo xamante ni ku fi ñëw di nga yéemu naam dégg ngeen noonu ko sëñ euh, sëñ Xaadim waxee dul njaareem jàpp nañ ne bii mooy ñaareeli ñaareeli daje boo xamante ne mën nañ koo wax ci yoonu murit nga xamante ne am nañ ko ci ndigalu sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom Cheikhuna Ahmadul Khadim mu joxoon ko jàmbaat ji ba tey jii ñu koy wéyal waaye sëñ Massamba loolu feeñ ndigal loolu sëñ Abdoul Ahad joxoon ko mu feeñ mu feeñ bu baax a baax a baax ni muy feeñee mooy tey ku fi ñëw Cees rek li nga xamante ni lii am na lu ci laxasu li ci laxasu nag doonu dara lu doomi sëriñ Tuubaa lu joxe ndigal mukk ñu dem ba jëmmi jamono ñu am leneen luñ koy jàngate lu mu yéeme yéeme yéeme yéeme nii rek la mën a mel ñu seetlu ne mbooloo mi waxtu yi bu jotee daanaka fu waay nekk cees rek da ngay ñëw jël naa jël naa sax cees dañuy seetlu ne fu waay la nit di bàyyeekoo moo xam Dakar la wala Touba fu nekk la nit bàyyeekoo di ñëw fii ci fulku bi sëñ Massamba. jërëjëf sëñ Modou noo ngi lay siyaar bu baax di siyaar mboolem waa tuuba Vision di sant bu baax ci dikk gi nga xam dikk ngeen ko fii tey waaye loolu nga wax nag day mel ne dikk sëriñ bi ak lu bari ci taarix ci wàllu fulku bi sëñ Xaadim wax na ko waaye li nga wax léegi ci ndigal loolu mooy dañuy xool ki sëñ Abdul Ahad jox mooy kan ki mu ko jox ne ko demal Saliou Touré demal Thiès yeggale waa Thiès yàlla yeggale waa Thiès yàlla nag maanaam loolu du ay caaxan te ko wax doomi Sëñ Tuubaa la kon ku mu ko wax xamul yoon wa ñuy jëmee ci yàlla kenn looy yóbbuloo kenn ci yàlla kon tey jii sëriñ bi fonk gi mu fonkoon fonk bii bokkoon na ci bu toogoon di ko jàngal boppam kenn sañ ta wax bay fi tosu bokkoon na ci mu wax ne daanaa ko dinaa ko guddeel ngir xam naa ne suñuy suñuy suñuy kattan mënta woor waaye bu ñu wooree ba ngoon bu ñëwee ci fulk bi ma guddeel ko ba bu ñu fi jógee diggante fii ci yàkk ji ak suñuy kër duñ fa amee bàkkaar na ko ci liggéey bii muy fulk bi ñett moo ñetteelu téere bi nga xam ne ginnaaw alxuraan ak hadis moo wétali moo leen wétali ci àjjana moom fulk ëllëg yomal xiyam weesoo alxuraan ak hadis rasulullah sallallahu alayhi wasallam fulk bii mooy leen wétali ci àjjana wax na ne sëriñ Tuubaa wax na ne ñaan na ko suñu borom ba suñu borom nangul na ko loola kon nag liggéey bii nga gis nii mooy liggéey bi nga xam ne liggéey bi Serigne Saliou Touré rek tey moom moo nekk nii bis bi di bis boo xam ne mboolem kuy am murit sa dëkk fii ci dëkk bi wala bitib dëkk bi foog nga bis bi ngir sëriñ bi kat dafa ñëw ci dëkk bi ngir mbooleem dëkk bi ak li dëkk bi waaye li ma waxoon it bi ko suñu Abdoulaye waxee dem Thiès sax ne ko lenn charte laa ci teg mooy ku nammuta am ngërëmu Sëriñ Tuubaa mu ànd ak man kon nag dañuy jàpp ne fii tey képp ku fi teew rek bokk nga ci am ngërëmu Sëriñ Tuubaa ngir moom moo ko ñaanal Sëñ Tuubaa bañ Sëñ Tuubaa may ko ko moo tax loolu ñu indi ko Thiès kon Sëñ Modou wax dëgg yàlla dikk ngeen dëkk fii wax ji moo naa gën a yaatu moo naa gën a gën gudd waaye li nga wax ci tàmbali yi mbiri Sëñ Saliou Touré xayul ci minute xayul ci seconde xayul ci ci ci waxtu ngir moom dundam da koo joxal Sëñ Tuubaa bu boppam amu ci dara lépp jox na ko Sëñ Tuubaa mësa woo kenn ci boppam mboolem bis boo gis ci jàkka ji nit ñee ko woote waaye woote woo ko mësa woote dara li mësa woote mooy ndigalu Sëñ li mooy gàmm ak fulku lii sëñ Abdou Khadr moo ko jox lii sëriñ Abdoul Ahad moo ko jox mais leen boo gis boo ñoo dem ci moom ñaan ko ci ndigal mu may ñu ko ñu ko ñu ko taxal ci jàkk ji waaye mos a woote dara ba tey jii waaye di ñaanal baax nag sëriñ Sidi euh, sëriñ euh, Mountakha Mbacké samborom ko fa yàggal lool tam ànd ak wér waaye di ko di ko baax a baax samborom gën ko yàggal tam ànd ak wér waaye di ko ñaanal baax it suñu jàmbaar ju tedd ji nga xam ne amuñu loolu moom mu jëm sëñ Saliou Touré samborom gën ko fa yàggal lool tam ànd ak wér ak mboolem talibé yëpp yéen télé bi it ñëw fi yàlla samborom defal ay tawfeex baax jëmal ko ci kanam a kanam ba fépp fu ngeen ko bëgg a yeggale rek ngeen àgg fa àgg ngeen mu àgg fu kaw seen jot ci barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa jërëjëf euh, sëriñ Massamba ci kàddu yu matale yooyu mbokk yi xam naa dañuy woy rek ànd ak yéen dugg ci biir fas yéene war leen lépp loo xamante ni moom la murit yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci Thiès ni ñuy dundalee fulk bi ñu am lu ñu seetlu nag waaye duñ leen ko wax dañ leen di bàyyi buñ duggee rek incha allah rabbi di ngeen ko gis dinañ leen si ñamal dara muy tekkaaral gi nga xamante ni dafay am ak teewlu gi ndax dara waralu ko lu dul maanaam li nga xamante ni moom lañu fiy jàng dañuy jàpp ne suñu borom moom mooy dugg ci xolu doomu aadama yi maanaam tàggat ci ñoom ak yar goo xamante bu ñu ci xasee dugg daanaka yeneen jëmm lañuy ñuy doon buñ duggee lépp ni ko firndeel kon ne suuti kon ñu dikkaat ak kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.